C'est très important pour nous xam wax jooju balaa ñoo dem fenn C'est très important xam nga tey ban sëriñ la ñu mun jàpp bi terrain comme ce qui se passe à Malika El Yoff je ne sais pas parce que dossier la ça concerne direct le marabout te booy Malika que Malika koy gérer je le laisse avec lui liste bi bu dee li c'est lire vrai yuux dina djib fuñu ñu té ñom ñëpp le nouveau procureur va les convoquer one by one ñaar def nañu conférence de presse ak Aliou Dembourou Sow def na conférence de presse yow Aliou Dembourou Sow yow si la fédération sénégalaise de football n'était pas une fédération antipolitique bo xam état géré ko yàq aussi yàq Augustin Tine seen deal yu ngeen ni tek ma wadal la ma ce dossier complet ak Augustin Tine mais. c'est pas l'État loolu fédération sénégalaise de football la loolu ça le concerne c'est pas l'État Nekul ci suñu ligne de développement nekul sama ligne de mire quoi sama ligne de mire moy ñi commencé def internet 25000 cinq mille pour jàmmaarloog gouvernement bu bes bi ak nit ñi daan saaga ak jël waxu tunkara bi jox la presse ngeen bëgg ko def arme de guerre Didi lu mu dépenser lu ñuy fay ci impôt at bi kenn su ko dépenser ci ñun Macky Sall jël na ko doon saga ndey nit ni Souleymane Jul Diop andi ko moo ñu ko jàngal c'est notre formateur à nous tous pour muy clair Kaliphone Macky Sall jël na ko tek ko sen wet yeen yeen ngeen jakar moom yeen ñepp yeen wa APR bu muy ñew sen siège ngeen koy saga ndey no beneen femme boobu xaw ma naka ñuus mooy xaw ma naka ñuus ñuus titi te moom ñaanoon booy sayid naka waay ñuus bee may réer tuutur awa ñuus xaw ma waa awa ñuus titi awa ñuus moom tam laa même chose ñoom ñoom Macky ne les a pas reçus léegi ngeen bëgg a jël waxu Tunkara am ñu ma ko daggal vidéo ba tagal ma ci man ñu saagaale ma ndey man bu makki Sall toogaatoon ci réew mi mu jaraat dugal ay ay drone ay cocktail molotov ay bomb dama koy dugal pour ñu xeex xeex bi gis nga bés boo leen ñu fekk see ci terrain xeex xeex bi comme lu Sonko waxoon ne woon bu police ak gendarmerie posoon suñu diggante rek ngeen xam ne coow li day jeex mais bii pa gouvernement dugg ci état moo taxaw ni ci diggante bi mais gis nga bu ci état génnoon léegi coow li jeex bu ci état génnoon léegi ñu réglé coow li parce que gis nga coow li xam nga ni fu ñu jëmee ne woon naa leen bés bu ñu faloo ñooy nekk régime bu gën a metti pour ñu gouverner Sénégal ñun waa Kër Sonko ne woon naa leen bés bu Sonko faloo jàppale ne d'ici deux ans coup d'état mën na parce que ñii fa la ñu jëmee xaalis la ñuy toogee loolu life naa ko ça fait deux ans trois ans ne woon naa leen bés bu Sonko faloo la France di. bu naree génn Sénégal taal ko mu jeex ku nekk dem ne newoon naa leen bés bu Sonko faloo moment bii nag presse beeg ay ñoom genre jarul tudd tur kenn kese ma Madiambal Diagne ne ñu jël moom moom mooy seen exemple ndax mooy seen interlocuteur seen titrage yëpp xam nga lu muy commencé nekk Ousmane Sonko eh, Bassirou Diomaye Faye pas Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko Ousmane Sonko eh. presse bi xam nañ ne état du leen subventionné ñeneen ñu ngi leen di subventionné du ma wax lu ma wóorul nag moo tax dossier boobu noonu maa ngi koy étudier wan bàyyi wan xaalis bi fan lay jóge ax man ki ma bëggoon financé commencé ma jox ay dossier homme de Ousmane Sonko les proches de Sonko loolu man sama yoon nekk ci soxlaa ma xam dossier Ousmane Sonko xam nga dossier kan laa soxla xam Ousmane Sonko te xam naa ko ba pare le reste ku ma Sonko tegal dañuy dem ak moom Ousmane. éducation bi nga doon régler phase examen lañ jëm yéen xalé yi seen examen jàpp leen ci question culture générale ren fexe leen ba sétane Israël Palestine Iran li fa xew nii fexe leen ba sétane situation BRICS fexe leen ba sétane situation aduna bi fu mu toll actuellement niveau climatique bi réchauffement climatique fexe leen ba xam fu mu toll nii maa leen ni ko wax yéen ñi di def examen lépp examen période la bo xam taw bi day commencé ci àll bi enseignants yi auto inspection yi ñoo leen di déplacer bu ñu déplacé woo souvent bu ñu ñëwee ñooy cotiser jox wa dëkk bi togal leen Ousmane motivation yi motivation yi war na yokk de telle sorte que le léppay carré. motivation yi war na yokk avec la nouvelle technologie la na la leer na épreuve physique yeeg examen dina am ñu koy jël en direct en direct si lan ay salle de classe très délabré délabrement très avancé ngeen bëgg esprit enseignant yi du délabré dafay délabro élèves yi ñu ngi jëm ci examen boo xam ne quatorze matières lañ koy defee benn enseignant bu nekk dafay bëgg a corriger mille copies en même pas quatre heures de temps da leen gis si Ndiaga Ndiaye yeeg si bis yeeg fépp ñuy xoos kaye xale yi mathématique ak lépp si dañuy xoos rek di dem di xoos rek di dem. c'est de la lâcheté. sélection la def au niveau des examens mo fi xawoon man tok na jury ba tay ñu né temps ñoo wara a am temps bobu wara a am dinañ ko kolo kolo ba temps bobu am duñ ko yok duñ ko wañi saa sax dañ koy wañi souvent sélection moy am. souvent li ñuy déclarer né mo dem université Ousmane Sonko genn wàll gi demul université souvent li ñuy déclarer né la moy jot bourse genn wàll gi di jotul bourse dil yoyu yëpp xamna ko ci ministère enseignement supérieur ak enseignement secondaire la yemale dil bu am ministère. xam naa ko deal bu am éducation xam naa ko ba ci inspection yi deal yi fa am xam naa ko dil par dil laa leen di étaler enseignants yi ñu ngi rendi élèves yi principaux yee ngi rendi enseignants yi wax ngeen loolu mais waxu leen ci inspecteurs yi ak seen principaux yi nee Sénégal lu way di def dañ ko ci wara former kan lañuy former en tant que directeur d'école kan lañuy former en tant que principal amul y' a pas de formation pour être principal comme directeur ce qui est un peu dangereux école yu bari moy andi dislocation yi ba élève il ne se retrouve plus enseignant yi élèves yi wax nañ ma de xarmaté bi man de bi may xalé sincèrement soxla ma won cours de rattrapage xana monsieur Jules lañu daan yobbu té lolu primaire la mais secondaire soxla ma won cours de rattrapage parce que dañ jappone rattrapage ni bloqué ci ay matière comme man mat je m'en foutais pas mal donc je préférais aller à la plage mais ay rattrapage yi non non non parce que so wolo sa bop do def rattrapage mais légui kan kana kan ñeppay def rattrapage légui les meilleurs élèves ñoy def rattrapage parce que lan enseignants yi ñoy bloqué enseignement dans les salles de classe, il n'expliquent plus. Parce que nous avons 5 000, 5 000, 6 000, 6 000 élèves qui nous ont fait. C'est pas sérieux. Gars, il faut que nous nous Enseignants, ils. Il y a des gens qui nous ont fait. Il faut que nous nous les élèves. même si nous sommes élèves d'abord, élèves, monsieur Lalaïwa. Même si nous sommes élèves, nous sommes son maître, monsieur l'exemple commence par soi-même sa kër boo ko bëggee régler borom kër yow yaay régler munoo dérégler ba pare régler sa montre monsieur le président ba Bassirou Diomaye fay xam nga nawet nu muy demee xale séeréer sëpp dañuy jugg si dakaar ñoom mbindaan sujj xale Ziguinchor yëpp dugg ñoom mbindaan sujj man bu ma Aly Ngouille Ndiaye coinsul woon bii heure ren dina fekk bii heure man chaque vacance xale dootul jóge Ziguinchor dem nek Mindan Dakar parce que xamna ni fofu 25000 lañ koy fay par wèr man chaque 15 jours dina fexé bu ben ASC ñew ma fay xalé ku nek 25000 cinq mille Ndiaye bon may wax di waxat ya ngeen ne wañ ngeen sako engrais man sako engrais sako bi kessé sako bi bu mako andi won ak kilo 325.000 kon calculer non la tonne 325000 francs franc kon ñun kilo bi lu mu dédé dé 300 ñata trois cent vingt cinq franc nga koy jaay lépp mën na wàññeeku ci kaw état jël ay responsabilités engrais bi ñaari voyage dong buñ ko amoon suñuy projet li ngay soxla huit cent dix mille xar en trois ans deux mille vingt sept daf lay leer na tabaski deux mille vingt sept Sénégal on aura quatre cent mille yoo xam Niger Mali Burkina lay jóge quatre cent mille têtes yoo xam ne le mouton sera pesé Aly Ngouille Ndiaye yaay xaj yaa bëgg a xaalis yaay di xaj yaa di kuti espèce de vendeur de coke et de crack affaire drogue bi yow Aly Ngouille Ndiaye yaa tax yow sama yow sama diir bi yow du ko bàyyi mukk ndax yow lu tax état wàññiwul dara da nga ci gisoon sa intérêt jox ko say mag Ousmane Sonko li ñu calculé woon ñun ci secteur Lac de Guiers bi ñu dem jox ko ñoom Farba Ngom ak xaw ma kan vingt mille yooyu bay bi bay boobu j'avais deux cent mille emplois deux cent mille emplois yoo xam day am fa ngay créer cité créer fa si lépp boo bayee ba pare yow gis nga li ngay bay li ngay consommer Sénégal mais léegi li ñuy yóbbu mboq nag mboq bi ñu war a bay dugal ko Côte d'Ivoire yow xam nga ñaata tonne Côte d'Ivoire nga war a béy fii Sénégal dugal ko mboq Côte d'Ivoire mboq bi bu ñu ko bayoon dañ ko waroon yóbbu dem livrer ko Ivoirien ñu jox la sa xaalis sur place nga bay kenn du dugg ci détail yëpp ñun dañuy bay biir Sénégal pour lu ñu lekk noor ñu bay pour lu ñu exporter Burkina Niger dafa am matière yoo xam ne dafa manqué te ñoom Sénégal lañ koy wut see pour lan gars yi waxuñu dëgg bi loolu yëpp mais xoola yenn opérateurs yi dañ koy def sa dem jënd toolu mboq yi wax nañ leen ñaata la ñuy jaayee mboq bi biir Côte d'Ivoire mais léegi Sénégal xoola dañuy bayandoo lépp ñu jël mboq bi jaay ko si ki fekk dëkk bi amatul mboq noo leen def ba dëkk bi amatul mboq est ce que mbokk waratuñ nañ ko bay nawet ak lepp dedet on avait tout calculé ba mbokk waratuñ ko war bay nawet parce que Côte d'Ivoire tonu mbokk liñ koy jëndé c'est trop cher tonu mbokk Côte d'Ivoire mo gëna cher tonu engrais Sénégal secteur boobu côté seeni la dé suñu équipe sor lan la waron andi no de kaju liko ko di jël say kilos 350 commencement bi lolou bu démé ba cher man ma ñëw fekk ko fa yobbu ko ba kilo 1500 chinois yi ñëw ma commencé leen ko jaay kilo 2000 nak lan damay dem jënd tool dama dugg ci dil yoy yëp ndekete noix de cajou bi jaay ko kilo 5000 sax da nga perte ñom par dom li ñi génné jaay ko té noix de noix de cajou dom bi day défar sabu day défar gel day défar ki, huile de frein bu avion huile de frein avion liquide noix de caju bi moo koy defar da doom bi da nga koy lekk noo mais xoox bi gaz boobu nekk ci kaw gaz boobu nekk ci kaw dañ koy employé si yenn médicament aérosol yi noix de cajou benn doom boobu moo tax Inde par doom la ñuy jaay ñun li ñuy jaay kilo ñoom par grain lañ koy jaay cajou minutes yu Macky Sall kese nga mun a tegal un projet tok détaillé ko plus de 6 heures de temps taxaw ci tableau andi un comptable andi ko xam c'est un directeur de banque sama booy bu baax ndeysaan doon liggéey PAMECAS projet bi ñu gëmone ko mu gënné 30 millions ci bir banque bi pour ñun Aly Ngouille ñay dinañ jox ce imbécile de drogué là Sénégal dañu war di bay Nord, di bay nawet mais à partir du mois de octobre novembre jeex na kenn dootul bay ñun na gis nga moment boobu ngay bay li ngay exporté tout était prévu jarul ngay bay ay pomme de terre c'est trop en retard ay pomme de ñeneen ñaa ngi koy bay mboq moo manqué Côte d'Ivoire dugubu suuna moo fa manqué dugubu basi moo fa manqué dafa am yu manke yo xamne fokk senegal ñu bay façon bay bo xamne ñom dinañ ñu jox possibilité wala ñuy jël dugub ak yoy di ko Mali jaay jël matériel Mali andi ñun gis nga fokk ñu def ben genre affaire bo xamne commerce bi ñu war def nañ ko commencer suñu biir nee naa leen jëndum ceeb bi man buma sonko Sonko won sona Sonadis ak ki ma jaay leen kilo ceeb moins de 300 francs ndax état moy jënd ñew tek jaayal bopam en deux ans, trois ans, nous sommes en 2027, qui ne doit importer tel temps, tel temps, qui ne doit importer parce que le Sénégal de produire, c'est ce que Le Sénégal, si vous avez de l'huile d'arachide, si nous sommes encore en train nous avons l'huile passive, c'est faux, ce n'est pas l'huile passive. C'est faux, l'huile passive, c'est faux. Si vous avez un tour du marché, vous avez un tabasque, voilà. bàyyi ba ma jot rapport yi moo gën a wóor après on va voir parce que gars yi dañu tàmm ndekete port ba da nga gis ceeb bu ñu stocké kenn soxlaa ko nit loo nekk nekk nekk sama xarit boo nekkul ci dëgg dama la koy wax kenn soxlaawul yenn ceeb yi nga dem wuti say saako yi bees ñëw dóor ko ñu jël la tëj la si kaso bi xaw ma noo négocier ba ñu génne la déedéet loolu si Aziz Ndiaye déedéet moo tax diwlin bi ñu ñëw tas passeeb keroog new naa leen boo leen ko jëndul xam nga ñun tam dañuy tegal loo xam ne situation oblige fekk ne déedéet mun nañ ko bañ a jënd mën na bañ mën lañ ko bañ jënd mën na nekk nga am diwlin biir Sénégal bu dul moom mën na nekk c'est pas parce que publicité bi day dox dañ ci rami rami dañ koy jënd déedéet mën nañ ko bañ jënd négatif mën nañ ko bañ jënd c'est trop cher pour la ñuy tëgg gaay dañu bëgg andi benn bouteille diwlin gagné ci 300 c'est trop bouteille diwlin jar Sénégal 750 sax c'est pas normal 750 francs bouteille diwlin Sénégal c'est pas normal d'abord au euh, grand maximum butéelu diwlin 600 francs la war a jar ak loo ci wut wut wut wut wut bénéfice 600 francs war nga mun jaay butéelu diwlin bu baax Sénégal même bu dee huile d'arachide bu génnee Diourbel te loolu pour Sonko def ko Sonko foog nga bàyyi ñu ñu importer man boo man yow état jëlal décision ma andil la loolu yëpp ñu importe diwlin ne deux ans yi dañuy importer gerte bu ñuy bayee un an bii ren ak déwén yëpp Sénégal lañ koy téye ce qui fekk nga ubbi waat Sonacos yëpp Sonacos Tamba Diourbel Ziguinchor so Dakar nga ubbiwaat Sonacos yëpp def ko gerte nga ne maanaam deux mille vingt cinq deux mille vingt six gerte bi fii lay des bu fi desee production huile bi huile d'arachide c'est très cher en Europe fii Europe huile huile d'arachide c'est de kon déjà ñun mën nañu commencer léegi huile d'arachide ñun Sénégal lañ koy defaree. di consommer li ñu consommer exporter huile d'arachide mën na nekk ci kaw deux ans yi dañ ne deux mille vingt sept dañuy commencer programme boobu ce qui fait que am nga stock loo xam ne baykat yi ñu ngi fi fekk stock chaque fois lii yëpp suñu groupe on a tout comptable suivi di projet secrétaire général bi directeur de négociation bi mooy gain bi def marketing et négociation mu ngi fi Hollande ñoom ñëpp ñëwoon nañu Sénégal

tubaab bu intérêt am jotee yow lay exploité xeex ak yow mais nga sekk ak moom ngor ngor la boo ko jiwee ngor mu ji la ngor ba lëz intérêt moo ñu boole. opérateurs yi je n'ai rien contre vous mais denrée yi xam naa ne mënugul wàññeeku parce que stock yaa ngi fi ba pare mais nag foog ñu waxante dëgg ci réew mi nawet la ñu jëm wàññi denrée yi c'est prendre xeex ak ñëpp c'est prendre des pour beneen éclaircissement nag ñu bëri naan Ousmane Sonko gouvernement bi tëj c'est archi faux c'est l'état qui newoon naa leen état ak gouvernement bokkul chaque jour ma répété leen ko chaque jour ma ñëw ci loolu état ak gouvernement c'est pas pareil état du gouvernement état est continu mais gouvernement loo xam ne day jeex ana gouvernement bi fi nekkoon jeexul jeex na mais état bi jeexul état baa ngi fi ba tey état bi nag mënatuñu nangu kuy jéem a déstabiliser Sénégal ñoom kon xam nañu ne aller retour ñoom ñoo doon déstabiliser Sénégal aller retour ñoom ñoo amoon ay programme mu saagante ndey ak ñëw di dóor ñu nee la am na fu muy toll talatuñu ko ñu ngi ci nu ñuy développer réew mi ñu ngi ci Sénégal nu ñuy def ba xotti yoon yi ñu ngi Sénégal nu ñuy def ba dans ces mois là nous ñu le projet Macky Sall nous faisons tout ce qui est Macky Sall commencé dugg ñun suñu projet normal ce suñu projet normal deux ans projet budgétaire nous ñu pour 2026. deux mille vingt six xaw nous ñuy def ba mais nous avons nous bi war projet quitte à ce que nous tas assemblée pour nous voter voter suñu projet démarrer pour 2025 Nous avons deux ans yi avons imposé FMI lay imposé. c'est éducation tu ne vas jamais régler l'éducation nationale avec la

wax ji ñu leen di wax xoola taf leen ko yéen xam nga lu mu leen di ñaan ni yéen laa jeunesse ren day taw de mois de juin seen koñ yi am égu yeeg yooyu ay commencé liggéey bi man leen rek a ma métti suñu doom yëpp vacances ay mbindaan la ñuy dem nekk Dakar parce que y a pas de ci biir àll bi Ziguinchor ak fépp ci yam àll bi amul dara. tay yow tey Sonko sa mairie bi tay mënoon nga fa tek tay budget li ngi leen jox subvention 300 000, c'est apprendre aux enfants la facilité chaque 15 jours na ben ASC jël nettoyage de la commune buñu nettoyer ba pare nga fay leen journée ñaata même boo leen di fay journée 1000 francs wala journée 750 francs chaque 15 jours non par heure la ñu prévoir woon mais loolu par heure xam naa doo ko mën mais man sama projet bi ma yoroon bu ma ko tegoon par heure laay fay même su may fay heure 750 daf may leer ne chaque 15 jours di nga fay nit ki lu mu dee dee 50 000 chaque 15 jours nit ki fayee ko man moo ma gënal nit ki di fayee ko weer ak weer chaque 15 jours nga fexe ba nit ki am moo ma gënal fayee ko weer ak dëkk pour Sénégal pour xaalis bi circuler ba mooy foog ñu arrêté fayu weer bi

deux semaines yi ñaata la quarante mille nga jox xale bi bu demee dakaar bu mindaanu woo un mois lay mindaanu am vingt cinq mille mois xale Casamance balaa ñoo inscrire saison Kajoor jot ñu jaay kuku doog a fay seen inscription doog a fay seen i kayeeg bi dama ci xam dara ndax dama doon inscrire samay xale jënd leen kayeeg bi yooyu yëpp ça doit se régler naka lay régler àll bi foog état ñi ma jël responsabilité delloo si état. public et non état privé le Sénégal est trop privatisé même les pour état dundal nit ñi ay domam lay yakar ñu jaay ko pour mu dundal ni. le Sénégal est trop privé Faut que Sénégal délu ci État, état sénégalais d'abord l'état prend ses responsabilités si ay courant ndox agriculture pêche armée L'état na état jël ay responsabilités te à pour accompagner état les ministre ña bu ñu buggee ma jox leen numéro yi direct mais man ci traitement bi laay bokk parce que bul sonn tëb nga ma dañ may woo rendre ma compte te bu ñu ma rendre compte mooy loolu man sama yoon nekk si ñu koy traité. les experts ñu ngi foofu senegal moment yi ñu ngi fa pour deux mois xaru pese yeeg yëpp mën na nekk mais fokk nga am projet boo départ et ça sera un projet patriote. en cinquant ans ku mën andi deux cent mille emplois tijji géej gi andi si six cent mille emplois ku chômer c'est parce que da nga paresseux salaire yi foog ñu changer ko bàyyi journée trois mille booy fay heure cinq cent francs moo gën journée trois mille francs heure cinq cent francs journée bi dina la def quatre mille boo defee huit heures nañu bàyyi journée trois mille journée deux mille cinq cent ba pare yéen la jeunesse intérim yi intérim yi ils n'ont qu'à arrêter wa ila manifestation buy Amat, man je vais m'occuper des intérims personnellement investissement yi y may yónni naan ma Tounkara li mu de man déggu leen li Il y wax 12 774 bu ma topp nii ci bor ci combat 12 774. eh élection législative yéen xam ngeen luy tourner loo machine yéen xam ngeen jiji ñaata ñaata la gars yi di fay impôt et domaine yéen xam ngeen ñaata kër la ñu tourneel Sénégal ñaata kër ah kon da ngeen foog suñu xaalis bi ci xeex rek lañ ko defoon xam moom ay ñaata cag-cag ñoo fay daw si c'était à refaire si c'était à refaire ngeen xam ne ñooy ay gor missile ak ay roket laay am ngeen sens si c'était à refaire waa APR ñoo leen gën ñeme xeex maa ngi wax di waxaat lii laa ubbee maa ngi koy tëjee pour la constance ñoo leen gën ñeme xeex ëpp leen fit si xeex ëpp leen temps wu xeex ëpp leen temps wu live ëpp leen xam-xamul live gën leen ñeme wax gën leen ñaaw làmmiñ parce que on a une équipe type ay militaires yu sauvage Didi mu ngi fi Gatouzo mu ngi fi Boy Malika mu ngi fi Ibou Fall mu ngi fi ñun ñu sauvage la ñu yore ñu leen dàq xeex ay Akhenaton nekk ci camp yi jigéen yeey góor ëpp leen xam-xam réglé leen seen bopp ngir yàlla bàyyi leen bataille bi fi ngeen ko bëgg a yóbbu débat terre yi nekkatuñ ci nañ leen dem ci xam-xam évolution lan la gars yi digge woon lu ñu deful jël leen projet bi teg di xool gaa yi ni ñuy comporté woon ndax projet baa ngi avancé foofu la deal bi nekk kii góor jigéen la kii caabataan la kii lii la kii la on saute ça waaye on se respecte un peu la presse vous êtes averti pour une dernière fois Madiamba Diagne mi top, il n'est pas votre référence c'est un greffé et on l'a exclu de la justice c'est pas une référence gëm Sen seen bopp tuuti la jeunesse surtout pour les jeunes journalistes Oui, amee C'est un groupe quoi xoola suxlu naa leen ba commencé génnee message yi xam naa ne leen tas groupe bi changer. man ne naa pas ci groupe de du mais su ma lay dóor dama lay ba jaxate ci groupe lañ ko daanalee kiko financer financé bi kii joxe xaalis bi pour former groupe commando saboter Sonko yeb on a les messages on va tout transmettre à la division des investigations criminelles gënu leen ma bandi gënu leen ñëw il faut qu'on se calme xex bi du fiñu ñu on a dépassé ça on a cinq ans devant nous s'il vous plaît on se respecte bàyyi leen africain toujours tubaab ay africain lay yónni ci moromam africain pour mu yakal ko il faut que ñu dépasser lolu Macky Sall def na tawam ba paré mënutul ñëwaat bu leen Makisalo ñëwaat day fenn Macky Sall bopam lay jëm raxas pour Sénégal déstabiliser wu gaay yi toog nii téye étage yi man am kilifa APR bu mag bu ma watal ne ben étage duñ ko pert né nañ ñom brick brick buñ ko naré ñak Sonko dina xam ma leen c'est ça qu'on va voir nee ba ñak sama nday kilifa gu mag nak wolu bopam ne ma brick ñom duñ ko ñak brick te mom nee na ma booy mën ne ko waaw mu ne ma maa ngeeg ay saaga la ma ciy tegal xam naa daa mandi maa ngeeg huit immeuble tel tel tel tel tel maay borom brique bu ko fa diwlaalee bal pistolet xaw ma lan di saaga ndey a ne ko père da ngay duul coow li coow li ma ne waaw man ko da ngay duul père da ngay duul ci laa ko coupé xam ne paa bi tey taat bi daal tàng bàyyi ko mu wax mais préparez-vous à tout et soyez conscient yéen ñi doon live ñii ëpp ñu ñu làmmiñ dàq ñu ñu wax jóg leen ñu taxawaat ray jot na jubal jot na jubanti jot na ku jubul ñu dóor la bal nga wàcc fa lañ toll nii man na xam naa ne gouvernement bi bu ñu jëlu gouvernement bi ñu ngi lox loxal Ousmane Sonko may dégg mu xëy di laajte ay lan moo tax ñu ba jàpp ba jaxateeg su dee moom la jaru ko Sonko loolu yow xoola géral ñu sa gouvernement bàyyil fiñ ko tëj loolu du yow C'est l'État qui a pris ses responsabilités. C'est le colonel Kébé qui a porté plainte. C'est les noms qu'il a cités. C'est ces gens-là qui ont porté plainte. Mais pas toi, Ousmane Sonko. Donc, voilà. bul dugg ci coow li génn ci bàyyi gars yi réglé suñu coow ñun dinañ ko gérer ak ñoom ba jaxate ak ñiy jaay woyu ni ñoom même bu ñuy wax Sonko Sonko tout le monde sait que c'est pas toi donc silence nous on va gérer notre problème bul dugg ci problème mu gars yi nii bul ci jéem a libérer kenn yow toppoo kenn on est d'accord mais itam bul ci dugg c'est l'État qui exerce son rôle le plus absolu. Sinon, si le public applique ça sera une justice populaire Que justice populaire mënul dox ci réew man je suis d'accord pour cette justice là mais si nous bàyyoon nit ñu agir je le jure ba jaxate du ci génnee bakkan lii moo gën ci moom mooy sama solution Il y a gis naa ne yaa ngeen bëgg vous ñëpp jàpp si pour mu génn jarul ñu koy déedéet bu leen si dugg seen yoon nekku si laissez l'État suivre son trajet basuma basuma mare nafiyo nafiyo koy suko non ko abide iba famala jaa vous êtes un peuple digne. Donc voilà, Et euh, puis les fervents défenseurs de ce que nos illustres prédécesseurs, nos ancêtres, nos parents, nos arrière-parents, nos arrière-grands-pères, qui se sont battus toute leur vie durant pour nous laisser cet héritage qui nous rend si fiers aujourd'hui si euh, aujourd'hui heureux euh, d'appartenir à cette civilisation qui est la nôtre, eh bien, c'est à notre tour aujourd'hui de faire de notre mieux avec tous les moyens, y compris au prix de notre vie, pour que Macky Sall ne réussisse pas son projet de destruction de notre civilisation en tant que Sénégalais. je le dis en français souvent parce qu'il y a des gens, bon voilà, il y a beaucoup de Sénégalais de la diaspora qui ne comprennent pas peut-être certaines langues et puis ils veulent souvent comprendre en français. Mais bon, tu n'as Wolof, je m'en vais maintenant continuer à Wolof. Voilà aussi le Sénégal là. Hein. Les Wolof là, vous là, vous êtes des gens, mais vous nous fatiguez aussi. Hein. Attention, je suis Wolof, je suis Baol Baol, je suis Kadjol Kadjol, je suis Ndiambo Ndiambo. Aussi, hein. Je suis 100% Wolof. Mais moi, j'ai un problème avec les Wolof là. Parce que vous, les Wolof là, vous voulez à chaque fois qu'on parle Wolof, Wolof, Wolof, Wolof, Wolof il faut des fois aussi que vous arrêtiez. Hein. Vous exagérez, hein, vous, mes parents, mon là. Bon, vous avez de la chance que moi, je ne parle pas le Paul, je ne parle pas le Soninké, tout ça. Sinon, moi, j'allais faire des lives en et en Paul aussi. Hein. vous que vous, mes parents, mon là, vous exagérez aussi. Hein. Il faut arrêter là. Sénégal 7. J'ai vu Sénégal 7 là. Il vient de lancer en direct sur mon direct là, Sénégal 7. Est-ce vrai? Sur YouTube là. Bon, c'est bien. Tout le monde se connecte. Tout le monde est en direct avec Akhenaton. C'est formidable comme les télévisions refusent Akhenaton, Walfadjili ne veut pas d'Akhenaton. TFM ne veut pas d'Akhenaton. Akhenaton, TV ne veut pas d'Akhenaton. parce qu'Akhenaton, il va faire, il va faire exploser, en fait, le micro. Parce qu'Akhenaton va dire des choses là-bas que personne n'ose dire. Et comme c'est un pays d'hypocrites, un pays de mafieux, <laughs> donc ils ne veulent pas des gens <laughs> comme Akhenaton, mais tant pis, parce que vous êtes là. <laughs> Heureusement, d'accord. Mais ça m'a beaucoup, voilà, fini, Olaf, olaf, olaf, wolof ils sont très ouverts ils sont waa ils se mélangent avec tout le monde mais wolof mom soy làkk tubaab mun la ah tay live bi xanaa tubaab la tay du wolof soo làkkee soninke ñu dem sen yoon soo làkkee jola bi dem sen yoon soo làkkee loo làkk ñu dem sen yoon wolof dal mo neex rek bon mais moi je vais apprendre toutes les langues là parce que man mom wolof pire là mais man damay làkk pël damay dem je vais apprendre le pël je vais apprendre le jola je vais apprendre plein de langues parce que li ma war a wax dafa bari li ma war a wax moo bari man il faut que ma dégg yu bari kon voilà dama doon euh, fekke teewlu ñu soogo jublu ci waxtaan wi di leen jaajëfal yéen ñëpp rek bàyyi wuñu kenn Marie-Jeanne Ndione macha allah waxul ñi partagé Pape Samba Ndaw Safia Attar Pascal Rodriguez yéen ñëpp rek Bintu Fatou Ndiaye bi bi bi quoi biedash navu store biedash ah Mohamed Thiam yéen ñëpp rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ kenn rek Lamine Diédhiou jàkkite yi Malick Niang Jibril Faye sant yàlla bu baax a baax Zouzou Chic alhamdulilah société bi mooy baax waa jur di sànni mel na ay janax takk ay jabar yi dul jeex nappaaje fii nappaaje be pare teg saako ceeb ñu saaf ko ngeen yi nekk ci mbedd yi cappax cappax ñi ay wëyu ñi ay bëndi ñi ay yu kenn ba noppi ngaan gone yi kenn yaru leen ñenn ñi sax amuñu doom waaye dañuy joxe ay leçon de morale ku ci mel ne alaaji Assane Gueye dégg naa ko mu naan waajur yi yaruñu seen doom yi ndekete moom day joxe ndawtal waaye mënagul a nangu ndawtal ba léegi man waaye ma ngay joxe doom alaaji Assane Gueye nag mënoo ñoo jàngal ñu yare doom ñun dañoo am ay doom yow nag amagoo doom ci li ma dégg wóoruma nag waaye dégg naa amoo doom ku amul doom nag mënut a joxe leçon de yar nu ñu yare ay doom ñun dañoo am ay doom xam suñu ay àq ak suñu yelleef ci suñuy doom war leen a xamal seen diina jàngal leen ngir ñu mën a jekku seen àdduna di leen di leen yóbbu vacances di ànd ñoom fu ne ci àdduna bi di leen jàngal àdduna ñuy xool ndax école du du nekk ci école yi képp tukki tamit ci njàng àdduna la bokk bu ñu àndee ñoom nag coono lay doon ci ñun waajur yi waaye nag yàlla moo ko wax moo ne wa inna innama amwaalukum wa awlaadukum fitnatun la yàlla wax loolee nag man bi ma amee doom laa ko xam yàlla mooy wax ci alquran ne seen doom yi ak seen alal seen alal yi ak seen doom yi na la ci yéen wayjur yi waaye wax na dëgg li sonal doomu aadama yëpp mooy ut alal gannaaw ut alal doom yi nga jur njaboot gi coono la ndax dangay ngay yar da ngay jubbanti da ngay fexe ñu baax da ngay jàngal da ngay jox jikko yu baax ndax lan ndax société bi ngay suuraale bu ku nekk doon dund sa bopp rek ku nekk di dund ngir sa bopp kon dund day neex waaye li tax àdduna bi jafe mooy dañu ko bokk te mënuñu koo séddoo nga teg sa tànk ma teg sama tànk comme dañu ko bokk nag kenn ku ci nekk dafa am noo war a taxawee ak noo war a toogee ba kenn du lor sa morom loolu moo tax doom yi nekk responsabilité ci ñun yàlla jël doom yi gàll ko ci loo si wajur yi yar leen seen doom yi jàngal leen seen doom yi dundal leen seen doom yi loolu ngir bëgg penc mi baax moo tax yàlla teg ñu ko. moo tax sama baat bi sonn na ndax dama dem vacances ak njaboot gi yóbbu plage yóbbu piscine yóbbu restaurant yóbbu manège yóbbu fu ne yéegu wàcc boo comme ça xale yi ñoom dañuy dañuy dañuy bëgg waaye yow moom coono lay doon ci yow boo ñu bisee nag da lay jàpp moo feeñ moo jàpp ci baat bi nii waaye loolu képp la waaye alhamdulilah ñu sant yàlla ba yàlla may ñu ñu mën a dem ak yàlla may ñu njaboot dèjà am na ñu amul njaboot ku mel ne alaaji asan gay amul amul bant ñun nag yàlla may nañu ko ba ñu fekke ko tal ko man ko ànd ak di dem loolu sant yàlla alhamdulilah yàlla ko yàlla defal képp ku koy sàkku te xeex bi ñuy xeex loolu tax yàlla sottal ko ba mu sotti ba ñu tabax suñu réew mi ba mbell yeeg bien yeeg suuf seeg gàncax geeg alal gi nekk ci réew mi yépp ñu teg ko ci ay loxo yu juba juba juba juba jub yu maandu yu ragal yàlla ñu am yërmande ci askan yu ba que wi mën a gis seen bopp ci njariñu réew mi ba kenn ku ci nekk man caa dund yar ci sa njaboot jaamu ci yàlla tabax réew mi ci ni mu gëne ni ko yàlla ga a loolu moo tax ñuy xeex ñun ñi moo tax ngeen di xeex ñun ñëpp kon loolu rek mooy yéene bi waaw ndax doom responsabilité la bu yàqoo àdduna benn nit ku benn sénégalais bu bon mën naa yàq Sénégal gépp benn nit ci kaw suuf mën naa yàq àdduna ak li ci biir moo tax yàlla di sàmmloo doomu aadama yi ñu yar nit ñi ñu defar leen yàlla di bañ lu bon di bañ sàcc lu ñëpp bokk nga sàcc ko comme ni ko Macky Sall di defee ñu ñu àndal ji war dem ci askan wi ñu war yar askan wi war a jàngal xale yi war leen a ay jikko yar leen war fee xeex góor jigéen mu jóge fi maam Maxtaar Gueye Jamra lànk ne moom du xeex góor jigéen ànd ak ay rangok ay pawli ki ay mohammed Cissé ki képp ku la dàq wax lu bon ak dàq laa def lu bon dàq laa tux cocaïne maam Maxtaar bu Jamra moom lay nee na nag mi ngi may tuumaal lu ne mu di ko wax waaye man man sama lépp a ngi ñu ne fàng ci kaw man moom li may def nëbbu ko li may xeex xam naa xam na ko moom xam naa ko moom nag li muy xeex waxu ko nee na day xeex góor jigéen waaye yaakaaru ko de xeexul góor jigéen billahi bu xeexoon góor jigéen dana jàpp ci ànd sàmm ji koy génn taxaw ànd ak ñoom xeex ba ñu voté loi bi xeex góor jigéen ci àddu ci réew mi wallahi bu doon xeex góor jigéen moom ma Matar Gueye dana fexe ba juróom-ñaari gone yee ñu fekk cité mixta ñuy sëy ci mineur yoo xam ne mooy li ma wax rek gis nga boo yarul doom yi yarul leen dañuy génn ci kër nday nekk xale yu ndaw ànd ak seen numéro yu jigéen dem seen appartement ci cité mixta ay xale jigéen di sëyante seen biir mooy ngóor jigéen gi ñuy wax bon gi ah loolu maam Matar du ci wax Macky Sall du ci wax bañ leen jàppee dañ leen a bàyyi ñu ñibbi xale yu ndaw kenn tewu leen ndax Sénégal kenn du fa tëj góor jigéen Macky Sall boo ko jox garante jox ko tubaab bi ne leen tànk maa ngi nekk ci bopp réew mi Sénégal góor jigéen lu ko neex mu def kenn du ko tëj amul benn góor jigéen bu nekk ci kaso bi ma Matar Gueye du ci wax au contraire ma nga bàyyi loola bàyyi loi bi ñu dàq bàyyi lépp di wax waxi dialogue nee na na ñëpp dem dugg ca këpptalu dialogue ga Macky Sall xëcc fil gi këpptal leen ñoom ñëpp jàpp leen def leen ci ay ay ay ay ay ngunul petax def leen ci ay kaafu petax ñoom ñëpp kenn ku nekk di yooxu mu leen ràppatëj leen fa maam Matar koy dàqal gars yi de moo koy dàqal opposition bi dem leen ca woote ba pour ku ñëw dugg Macky ne la kàpp maam Matar Gueye tuxkatu yàmba loolu liggéeyam de waaw bokkul ak Latif Gueye dara ay cousin lañ sen papa yee bokk mu taxaw ne moom rakku Latif Gueye la Jamra li patati feni neen o ma jotam nag man léegi naa ma ngay posté lu nag ma ngay wax ci Akhenaton Akhenaton nag li mu fi mu laal a métti Akhenaton li muy laal fi muy teg foofoo métti te mooy lan association boobu ñu tuddee islamique nañ ci génne islam amul dara de islamique maam Maxtaar Gueye gëmul yàlla bay gëm islam maam Maxtaar Gueye gëmul diina gëmul yàlla alal la ak jeeg bu tàng jër ak nappaaj ak tux yàmba ak ak ànd ak ay góor jigéen loolu mooy liggéeyu maam Maxtaar Gueye loolu mooy liggéeyu jamra ci loolu la ñuy dox mafia la ñu xam naa bu baax li may wax euh, kon toll nañ ñun ñun kenn duñu xoqatal ay xoqatal ki ay noggatoo ak jéem a yàq der weesu nañu foofu yii ngeen nekk ku yëkkati ngeen xoqatal ko menace rek di fen naan Interpol xawma leen état du Sénégal seen fen yooyu ngeen nekk yow Mame Makhtar Gueye ki Youssou Ndour l'observateur man dama leen a talul maa leen ëpp ay xarit Interpol fuuf ëpp leen ay réseau li ma xam Interpol xamu leen ko Macky Sall ci boppam maa ko ëpp réseau dégg nga de fen yi ngeen fen sénégalais yi ngeen fan waaye man xam nga du ngeen ma fontoo l'observateur naan Interpol ki maam Matar Gueye naan ay Sénégal su leen ngeen def milliards de plainte milliards ci Akhenaton yooyu yëpp ay façon nga xoqatal ak noggatu rek waaye li lima ma leen wax dañ ay tappalekat ngeen ay toxkatu yàmbaa ngeen ay góor jigéen ngeen ci mbon doo ngeen di dox yow maam Matar Gueye ak imaam Masamba Diop ak tudde seeni bopp imaam du ngeen tous jigéen dong ngeen bëgg nappaaja gudde ak bëccëg door yi ndigg sànni ci àll ba képp ngeen di wër jigéen bu xees alal ak suuf ak taax mu dee ki kat-kat nee naa la kër gi nga dëkk Macky Sall moo la ko jox di la ko fayal moo lay dundal laaj nañ la ONG Jamra fu mu jëlee xaalis ngay fen naan nit ñi ko nit ñi membre membre Jamra ñooy cotiser ji waaye mën a fen dëgg musta def benn bilan comptable Jamra yóbbu ko ministère de l'intérieur en tant que ONG c'est c'est la loi qui l'exige dafa comptabilité bu leer day fen de Maxtaar Gueye fenkat la day dóor marto da leen di nax qui comme ça qu'il arrête Maxtaar day fen bu jamra dóorkat lañu ñoom ñëpp ay wëju lañu ay bandi ñoom ak Moustapha Gueye ma ca barsàq qu'il arrête de m'appeler oh là téléphone là ñoom ñëpp dañuy dóor Mais il a ça en plus. Bon, attends, je vais le bloquer et puis voilà, parce que. Mais. Alors bon attends, un instant ne quittez pas je vais le bloquer comme ça il va arrêter un peu de Alors, juste un instant parce qu'il a ici, c'est. Con. <clears throat> Voilà. di wax ne di wax ne effectivement voilà muy insister xool je sais pas pourquoi les gens dañuy bàyyi ba ngay live ñuy woote di wax ne maam Maxtaar Gueye Jamra dañuy fen rek ay tappalekat lañu ay dóorkatu marto lañu lobby góor jigéen ñi ñoo leen di financé dégg nga maam mafia yi nekk ci réew bi lobby cocaïne beeg lobby drogue beeg jigéen ñi ak caga yi ñoo leen di financé waaw xam na bu baax soirée privée yi Yara mu daan organisé mu daan ca dem. xam na li nu seq rango bu baax moo tax bàyyi na rango léegi ay rango lay fina lay fréquenté ay Pawlish ay Mohamed Cissé distribué distribué katu kàppoot ci jàkk yi léegi ñoom ñoo bokk Jamra Jamra léegi loolu loolu mooy seen liggéey ñoom yéena ma gën a xam Makhtar Gueye tàppale képp mooy liggéeyam tàppale Makhtar Gueye mi nga xam ne daawul jëkk Doudou waad bi Doudou Wade nekkee ci nguur gi ànd ak Abdoulaye Wade soqub Doudou Wade la woon waaw tey mooy taxaw fii yooyu di woote ci lislaam waaye comme réew mi diine amu fi réew mi nit ñi xamuñu yàlla bëgg nañ ko nag sénégalais yi bëgg nañu yàlla bëgg nañu diine waaye amuñu xam-xam ndeysaan soo nañu ci seen diine golo gu jóg ne maam Matar Gueye ne damay woote ci lislaam u ab association man benn saaru alquran ñëw taxaw golo dangin ba mel ne maam Matar Gueye di woote ci diine ñëpp toppee sa ginnaaw fekk yow fu ñu la fekk yaa ngi ci góor jigéen ñeg doxaan ki ëmbal ki takki jabar di sànni de dégg ngeen de lii may wax nag da leen yee day tax ngeen xam dama leen wax lu ngeen xamul woon xippi seen bët yi pour ngeen xam xam gi ngeen xam nag moo tax ba dem ba léegi amul jàmm moom mam Maxtaar Gueye am na ay nit nag yu mu yónni ñooñu woo ma dama woy waxtaan nañu ak maam Maxtaar sa xarit la te yow it suñu xarit nga xuloo bi ngeen di xuloo ma ne leen xuloo maag maam Maxtaar Gueye de man uma jot a xuloo kenn xawma ko moom maam Maxtaar bokkuñu bokkuñu dara xawma ko maanaam xawma ko mooy maanaam moom xamuma man xawma ko waaye xam naa li muy def waaye xamante wuñu miinante wuñu laa bëgg a wax waaye la muy def moom xam naa ko kon man oma intérêt du xuloog moom du sama cible lu dul jëf ju bon ji muy def ci réew mi te ñu bëgg jikko yi baax nit ñi bëgg baax ñu tabax réew mi ci baax loolu lay dal ci ko jamra dal ci ko moom mi ngi jamra li ñu def du dëgg du yoon loolu képp laa koy wax daa bëgg ngeen waxtaan ma ne ko lu may waxtaan ak moom awma ko maa ngi wax ak moom mi ngi wax may wax askan wi ñooy tànn askanu Sénégal ñoom ñooy xool lii dëgg ñu téye bu fekkee li ma Matar wax loolu la ñu gëm ñu téye bu fekkee li may wax la ñu gëm ñu téye waaye loolu kay man amu lu may wax ak moom yow demee nga ne ko waxuma ak moom amu lu wax ak muy wax na ko wax publiquement waaw ndax xam naa ay technique am ku mu àndal rek daa xuloo ak ci ci njàlbeen dalay attaqué ngeen attaqué te ba ci kii nag mu jaar ci suuf def yëfu naa feq yónni ay nit pour ñu ñëw approché la pour ñëw waxtaan ak moom ñu pencoo daal di defar ba mu rafet ay yëfi aada waaw xam ngeen yéen ñaar ñëpp samay xarit nga loolu yëfi aada la man doxuma ci ay aada man doxuma ci aada ci dëgg lay dox bu ma nekkul ci dëgg ngen ne ma nekkul ci dëgg bu maam Maxtaar nekkul ci dëgg ngeen ne ko nekkul ci dëgg ki nga yónni nag mu ñëw ci man di wax ak man yow maam Maxtaar yóbbantewaat naa ko ci yow ne ko waxuma ak yow waaye moom mi moom mi nga yónni bu demee ci yow na la wax yow na la laaj ñetti laaj yow maam Maxtaar benn bi njëkk bi mooy lu tax li ñu fi teg Ousmane Sonko di ko teg patriote yi di ko teg ñëpp ñu ànd ak Sonko boobu ba léegi ci ay lacrymogène ci rey ay nit ci bañ Ousmane Sonko nemmeekutul ci jàpp ci doom njabootam gi tëj ci kaso bi yooyu yëpp yow maam Matar Gueye lu tax doo ci yëy doo ci bi wala loolu diina da koo daganal loolu loolu dafa loolu loolu dafa dagan moo tax ci wax ndé nga ci diina ngay wo maam Matar benn lu tax doo ci wax waa ji mu yónni ci man laa yónni ci moom ne ko boo demee wax ko loolu benn laaj lu tax du ci wax bi nga laajal ma ko ne ko juróom xale yooyu ñu jàpp ci cité mixta ñuy doon sëyante seen biir ay xale yu jigéen yoo xam ne fettaguñu ci nen fereguñ ci seen nday ya ay mineur lañu xale yu ndaw lañu rëcc nañ seen nday ndax seen nday yi ba demee ña ngay mosante ak seen bàyyi waaw ñoom it mosante dóori ndigg te dañuy jur di sànni ko bi janax duñ leen toppatoo jur sànni nekk di kucc kucc bu dégg bëccëg dóori ndigg ba seen doom yi tamit jàng ci ñoom doori ndigg génn kër ga rëcc dem àndandoo ay jigéen juróom-ñaari xale yu ndaw jigéen yoo xam ne amuñu 15 ans dugg ci ab appartement cité mixa di fa sëyante seen biir maam Matar xanaa yëgu loolu lu mu ci wax dama nga laajoon ma ko lu mu wax ci loolu muy ñaareelu laaj bi ñetteelu laaj bi nga laaj maam Matar Gueye kër gi mu dëkk kan moo koy fay fan la jëlee xaalis bi muy financé Jamra kan moo koy financé na ko wax na génn wax Sénégalais yi fu Jamra di amee xaalis bi muy financé bu muy dundee te na génn justificatif comptable yi teg ko ci comptable ñëpp gis ko moom maam Matar du ko def nag imaam Matar Gueye moomu muy wax. naan dama ne imaamu góor jigéen yi dee na loolu tànk maa ngi dund ñëpp daañu ko dégg Maxtaar Gueye Moustapha Gueye ma ca barsàq laa ba mu dee maa man ñi maa ne imaamu góor jigéen yi dee na ndax ma doon défendre góor jigéen ñi ànd ak Macky Sall dugg ci ñëpp di ko gis Macky woo ko ba ànd sàmm jikko yu jógee di xeex ngóor jigéen mu naqari maki Sall maki Sall dafa dajale ay imaamam